gannaaw bi ñu fi ñaari weer ci ginnaaw euh, bi nga xam ne wax nañu ne euh, ñiy bay coton ren mën nañu am ay jafe-jafe ndax dafa am benn benn euh, insecte bu gunóor si fi si yàq tool yi du woon Sénégal rek d'ailleurs daanaka fépp la woon ba li nga xam ne lii ñoom xalaatoon nañ ko am muy trente mille tonnes ren ñu yaakaaroon ko dootuñ ko mën a am ñu ngi doon xayma ne danañ am dix finalement yàlla def na peut ak jumtuwaay yi ñu góorgóorlu nañu ba yaakaar na dañuy am quinze mille ba léegi euh, néew na par rapport ak li ñu ñuy xalaatoon donc nguur gi aussi décidé woon na di leen di accompagner euh, fayal leen bor yi ndax ñu a toogaat ci secteur bi parce que aussi bu fekkee ne ne fooy une déjà ñu ngi doon commencé am problème sax